awuzu billahi min alseytaan irajim bismillahi arrahmaani irrahim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi nuyu mbokk yi ñuy seetaan yëpp te di leen ndokkeel di leen siyaar di leen baalu àq eh, di am mbégte bu baax ci ànd ak yéen jataay bii nga xam ne ñu ngi koy def ci turu daayirum xadimatul xidma ci njiitul sëriñ bu Buso ak ci turu commission sociale et relation extérieures jëmm yi nga xam ne ñoom laa toogal bokk yi ñiy coordonné liggéey boobu rawatina relations extérieures muy sëñ Abdou Lahad Maam Asta ak sëriñ Assane Diop mi nga xam ne mooy coordonné diaspora bi li waral jataay bi nag mooy soññee ci weeru koor wi xam ngeen ne daayira Muxaddamatul Xidma liggéey yi ko sëriñ bi dénk bëri na waaye koor da cay muy weer woo xam ne dañ ciy dundal barab bi di ko màggal ngir di sëriñ bi fonke woon Ramadan ak ni mu ko doon waajale fii nag ci jumaa ji ñu koy ñu fiy daje lu mat ay nangami junni wala ñeent mat junni mat na ko wala lu teg di dundal weeru koor Euh, di leen dogal ak di def ay waxtaani diine yoo xam ne mbooloo mu bari ñoo fiy teew loolu nag mu laaj bit si bu rëy rëy tax na kon ñu ngi soññ bokki taalibe yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi rawatina ñi nekk Europe ak amerique ak Asie su dee Afrique gii tamit ñu ngi ci jiital sëñ fari Ndiaye moom miy coordonné réewi Afrique yi bu dee Europe sëriñ Assane Diop mi nga xam ne mooy coordonné diaspora bi foofu bu dee Amérique du Nord sëriñ Amsatou Lam ak Serigne Cheikh John muy muqaddimatul xidma bu dee Brésil ak Argentine ay Aymerou Diakhaté ak Serigne Talla Sall euh, di leen soññ ñu soññ seen i cellules nag cellules yi nga xam ne ñoo aju ci ñoom ngir ñu waajal seen i addiyee yi nga xam ne moo daa jëm ci koor gi ñi nga xam ne dañ daa jaar ci compte Wave ak Orange Money ñi ngi leen koy fàttali 677 686 13 13 686 13 13 mooy Wave mooy Orange Money kon liggéey baa ngi noonu ñu ngi ciy soñ ñëpp di ñaan képp koo xam ne daal jëf nga ci sunu borom nangu sa jëf te fay la te ful ko barakati xaadim rasul asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu